convoir tey ñu yokk seen salaire seen seen mandat ndax tey ji grâce que ñun député assemblée nationale yu mag Sall yi tax na ñu yokk seen seen mandat mais yokk boobu ñu yokk seen mandat est-ce que yéen da ngeen di continuer du ngeen am benn contrôle ak benn observation si yi nga xamante mooy milliards yi ngeen di jox ak millions yi pour que ñoom ñu leen dugal ci seen ci seen gafaka est-ce que mi ngi dem ci askan wi wala demul ci askan wi ndax yaakaar naa ni boo diree léegi euh, euh, li may wax maanaam faux de concours faux de parce que maanaam maire yëpp ak conseil départemental yooyu la ñuy dund mais amuñu benn ressource boo xamante ni parce que mën nañ si dund pour doxal seen i seen i may laaj yooyu nga xamante ni tey si lañ mën a sukkandiku pour que département yi ak région yi ak euh, communes yi mën a dox loolu tamit bëgg naa ay leeral programme bi nga xamante ni président la république daf ko waxoon muy conseil département yi ma bëgg xam yee ñaata conseil département ngeen fi tabax bi ngeen jëlee nguur gi ba léegi ak yan ngeen bëgg a tabax ak fan ngeen si toll loolu tamit bëgg naa si ay leeral ndax fa man dëkk muy département Mbacké fi may waxee ak yow ñu ngi fay ay location yoo xamante ni depuis booba léegi

jàpp naa ni li ñuy fay si location dana maa tabax tey ji ay yoo xamante ne ay chaise lay doon kon loolu bëgg naa ñu dellu si waat si xoolaat bu baax baax en tout cas rek si gàttal mooy euh, bis bi moom gis nañu ko li nga xamante ni moo si am solo li war a dem si askan wi noo dem si askan wi ñi ngi war a contrôler incha allah chaque 3 mois ndax jàpp naa lan la joxoon daaw man de fu may wax département Mbacké gisuma loo ko def gisuma ko sincèrement gisuma ko ministère bi daaw gisuma leen loo xamante ni bis daaw bi ni lii moo ko def département Mbacké ren nag comme léegi joxaat na la benn xaalis di xool suñuy bët est-ce que da nga defaat dara au département Mbacké wala doo ko fa def